bismillahi irrahmani irrahim allahuma salli ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbi wa sallama taslima ñu ngi leen di nuyu yéen suñu mbokk jullit ñi mbokk taalibe tijaan yi ñu ngi leen di nuyu bu baax ci seetaan bi ngeen di seetaan almisbaahu tv di leen ci soññ ndax sit bu am solo la ndax liñ ci waxtaanee bari na lool lool man nag maa ngi waxtaan ci téere Seydi Hadj radiallahu taala anhu bu tudd ifham munkiri jaan ay jaar-jaaram ak i jëfam yu mag ak xóotaayu tariqa bi li mu ci xam bari na lool loolu lay waxtaane tey jii nag ñu ngi ci sixième émi édition bi ngeen góorgóorlu du ko seetaan muy Misbaahu TV ndax njëriñ kese moo ci nekk incha allah ngeen teewlu ko bu baax a baax tey jii ñu ngi ci gën a leeral Seydi Hadj Malick jaar-jaaram ak may yi ko yàlla may ci tariqa tijaaniya ak leeral bi nga xam ne lu ci bëree bëri ci moom la bàyyi ko moom si laaj ba tax na mu taalif téere bu mag bi Faam Munkiri Tijaan bàyyiwu ci dara tariqa Tijaan lépp la ci def pour maanaam yee taalibe yi te jën ak ñu ngi ci fa muy jëfandikoo moom ci laaj Malick ci ñaari waxtu yi mu di suba ak ngoon nee yàlla may na ma fii ci Sénégal bi nga xam ne fii laa soso man si daas Malick amul kenn ku ma jiitu ci tarixa bi fii ci Sénégal ci wàllu wazifa ñi ko jëkk a def ci la bokk man si daas Malick nee na nag boo gis gisee eh, ñaari waxtu yi ma santaane ko du dara lu dul rekk benn mbooloo boo xam ne mbooloo mu sukkandiku la ci man nga xam ne moom tamit mu ngi sukkandiku ci waxi Seydina Cheikh radiallahu taala nga xam ne moom moom tariqa bi soo demee ci jawel maa ni wax ji ma wax mu ngi foofu fa la gën a leere nee na wa in tayassara filuha fi lwaqtayni fa xasanun Seydina Maalik mooy wax nee na soo mënee def yow taalibi tijaan wasifa ci ñaari waxtu yi rafet na baax na mu di suba gi nga def ko def ko ngoon soo ko mu nee def baax na waaye nag wa kafa bi taxsini cheikh radiallahu taala anhu nee na sukkandiku bi gën a màgg ci sukkandiku yi te man Seydina Aliou ma sukkandiku sukkandiku boobu mooy rafetal bi Seydina Cheikh rafetal ne ku mun defal ñaari waxtu yi wala ku mun defal benn waxtu bi nga def suba wala nga def ngoon wala nga def ñaari yëpp nee na loolu rafetal boobu ci la sukkandiku nga xam ne Seydina Cheikh tariqa bi moo ko moom ndax moom la ko yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi jox nee na tamit wa in lam yafal bihi dalilan indal musannifi nee na képp koo xam ne gi tamit defuloo li nga xam ne mooy dalil bi nga xam ne musannif bi loolu santaane man Seydi Hadj Malick ngaa def ñaar nga def benn ci suba def benn ci ngoon wa illaa nga def benn wala nga def maanaam bu ngoon bi def bu suba bi nee na wa sababu zalika anni kuntu fi ba'd al ayyam indal basatine dafa am benn bés man si laaj Malick ma nekk ci samay tool zamanu kaw ni fi qaryati njaarnde boobu maa ngi njaarnde maa ngi dem maa ngi ca tool ya fii yu yuqaalu lahu bay bay bërëb bii nga xam ne fa nekkoon mu ngi tudd bay bay ca njaarnde kon nag eh, wajtamaana fi mawdiin waahidin nee na mag taalibe ñi daal di daje ci benn bërëb dof ko muy jataay wa kaanu ida sallu subha yataxaddasuuna ma leen di seetlu rek bu ñu jullee suba daal luy seen yitte yëpp mooy waxtaan rek waxtaan ci àddina waxtaan ci ay lu seen yoon newul ma leen di seetlu rek nee na way takallamuuna bi ma la faidata fii wax ja ñu wax amul benn solo ndax wax ja waxi caaxaan rek lañu wax ci seen wax yooyu wa qultu lahum faqara'u alwadifata am benn bés nag moo woo leen bañ ñëw man leen su ngeen jullee tusuba na ngeen toog ngeen lal mbalaan bi di ju di def wazifa da ngeen lal mbalaan bi di ko def sabaxan wa masaan su ngeen jullee timis tamit na ngeen lal mbalaan mi di def maanaam wazifa bi man Seydi Malick maa wax loolu ndax ba may leen seetloo gis buñ jullee suba ay waxi caaxaan la wax buñ jullee timis ay waxi caaxaan la wax man leen waxi caaxaan yoo amul solo kon nag bu ngeen julleeti suba rek na ngeen lal mbalaan mi ngeen def wasifa su ngeen jullee timis ngeen lal mbalaan mi def mën a wasifa looloo indi ñaar yi nee na ann silsilata al umariyata allati hiya asli donte sax man Seydi Hadj Malick Euh, Seyku Umar radiyallahu taala anhu silsilaam mooy di tarixa bi ci moom laay jokk ndax mooy sama cosaan man Seydi Hadj Malick donte sax moom Seyku Umar ak ñi jiite tarixa bi ci wàllam ñoom dañ daan def suba rek yem ca du ñu def ngoon nee tamit loolu sama sukkandiku la waaye man dama ne leeral leen waxuma pour ñu def wasifa suba ngoon lu dul caaxaan yi nga xam ne ñu ngi ci waxi caaxaan amul solo amul njëriñ ngay tudd yàlla moo am njëriñ moo am solo looloo taxoon ma santoon leen ko pour ñuy def suba bu ñu jullee bu def ngoon boo naan bu ñuy jullee timis bu def wasifa dont sax cosaan bi mooy benn yoon nee na istamara alayhi amalu cheikh axira umrihi nee na seykuma radiallahu taala ci la sax ci mu jëli dundam mu di wasifam suba rek lañuy def ñoom bu ngoonee lu ñu def wa baadul ixwaan alladina kaanu inda almadinati almunawara ala saakiniha afdalu salaati wa salaam yaqra'uunaha baada salaati al-asri leeral bi faw ma indi ko pour leeralal ko nit ñi nee boo demee ci a Munawwar fi yontu sala salaam tëdd tey jii taalibi tijaan yi fa nekk bu ñuy def wasifa ñoom dañuy def wasifa benn benn yoon rek la ñu def benn yoon la ñu def ñoom mu di buñ jullee tàkkusaan dañ koy def buñ jullee tàkkusaan dañ koy boole ak maanaam suñ paree seen lazim dal di lal mbalaan mi dal di def wazifa su ko defee ñu noppalu ay quelques heures timis jot ñuy julli nee na Medina moom loolu mooy seen cosaan kon nag wa qiraatuha aydan bada salaat al maghrib maa seydi ibrahima al xatib fi masjidil makkatal musharrafa nee na tamit boo demee ca makkatal mukarram benn sëriñ bu mag mu nga fa xalifa Cheikh Tidiane la nee na moom bu fekkee ne jul nañu ba pare maanaam euh, euh, timis ci la ñu lal mbalaan bi def wasifa xam nga kële tàkkusaan la ñii ñoom buñ julee timis mu di maanaam Ibrahima euh, Cheikh Ibrahima nga xam ne moo nekk Makkatul Karam tënk tariqa bi foofu kooku bu jullee timis lay santaani taalibe yi ñi def wasifa zaadahallahu sharfan wa ahlul jazair aydan lama ataytuhu wajadtuhum yaqra'uunaha ba'da salaati al asri nee na waa Algérie tamit gëstu naa ba xam ne ñoom wasifa ñu ngi koy def buñ julee takk sanu pare la ñu soog a def wasifa kon kooku day tegtal ne benn su ko defee ba ñu paree julli timis julli gee kenn ku ne ñibbi sa kër nee na la allahu yuslukunaa fi silki ahli laayati min man sid has malik xëy na yàlla tabbil ñi ci aaya bi nga xam ne moom yàlla moo ko xol boppam ci suratu nisa nga xam ne aaya bi day tegtal ñaar yëpp ñii def suba def ngoon ñii def ngoon bañ def suba ñii def suba bañ def ngoon walla ñii def takkusaan wala ñii def maanaam bu ñu julee timis dana kooku aaya bi moo koy tegtal te kenn ku nekk ci niñ mun naa sukkandiku ci aaya bu tedd boobu mu di yàlla subhaanahu wa taala daf ne man yashfa safa safa maanaam safaatan xasanatan yakun lahu nasibun minha wa man yashfa shafaatun sayyiatun yakun lahu kiflun minha wa kana allahu ala kulli cheyin muqiita yàlla nee na képp koo xam ne ki def nga lu baax nga tàmbali lu baax loolu njëriñ kese la ndax ku la toppandoo ku la roy ci lu baax loolu yaa moom yëpp daa ngeen am tiyaaba te yow sax yaa yaa ko ëpp tiyaaba ndax yaa ko sos lii tamit képp lu ko def lu bon lu bon loolu sa kaw lay këpp rek te képp koo ku la roy ci jëf ju bon jooju tamit la mu ci am ci bakkan la ngay am ci bakkan mu ëpp kon nag moo tax ma leen leeral ngir xam ne ñaari yoon yi ci bés bi baax na benn yoon bi ci bés bi baax na ñi nga xam ne ñoo tànn takkusaan baax na ña tànn timis baax na suratu nisa nee na wa silki ahlil xadis bu ñu demee ci xadis yonent bi salaa sallam wa huwa qawlu salaa sallam yonent bi salaa sallam daf na man sànna sunnatan xasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha daf ne képp koo xam ne ki sos nga lu baax yow de am nga ci tiyaaba képp koo xam ne ki roy na la ci tam ca la nga sos te lu baax lañ cay am sax moo ëpp moom mi nga xam ne moo la roy mu ci am kon kooku ba tey di fekk si aay bi rek du ngeen koo leeral day fekk si tamit na Seydina Alaaji Maalik radiyallaahu taala ca la mu wax ne defuma ko pour sama maanaam xalaatu bopp dafa am ay nit ñoo xam ne ñu ngi ci ay waxi caaxaan moo tax maanaam ma jëlee leen ci ne su ngeen jullee suba ngeen def wasifa su ngeen jullee timis ngeen def wasifa pour waxi caaxaan yi ngeen di wax ngeen bañ koo waxati bañ koo maanaam maa jooñ jëfete nee na wa ama zalika ala allahi aziz te loolu nag yàlla subhanahu wa taala dara tëwu ko ci kenn ku ci nekk rek la ngay def yàlla mu ngi lay xool yàlla mu ngi lay gis bu baaxee yàlla xam na su bonee yàlla xam na nee na walxaasilu an man tayassara lahu filuha fi lwaqatayni fa faala fala xaraj si ma nee na képp koo xam ne ki jàppandal na ci yow nga def ko ci ñaari waxtu yi def ko suba ngoon nga def ko baax na bakkan amu ci parce que lu baax rek la wasif moom lu baax rek la nga def suba def ngoon lu baax la kon kooku maanaam bakkat amu ci wala loo ma ngàññi amu ci ku la ngàññi tam daf la bëgg a ngàññi waaye kooku ngàññi amu ci nee na li tax siini cheikh radiallahu taala anhu ndax sidna cheikh moo jëkk a rafetlu wasifa suba ak ngoon dont sax moom sidna cheikh waxoon na ci dundam ne mun ngeen a def euh, suba bu ko tànnee muy seen farata wala mun mun ngeen def ngoon bu ngeen ko tànnee muy seen farata su ko defee maanaam rafetal boobu nga xam ne seen Cheikh waxoon na ko nee na soo ko defee tamit da nga fekk si waxi Seydina Cheikh ak rafetal Seydina Cheikh kooku maanaam bakkaat amu ci nee na wa man lam yatayassar lahu waqtasara ala marrahaar ba tey baax na nit képp koo xam ne kii jàppandul ci yow pour nga mun a boole ñaar yi def bu suba def bu ngoon lu dul yow la jàppandal ci yow nga def suba faqat wala nga def ngoon faqat nee na ba tey baax na kenn ku nekk daal da ngay seet li nga xam ne moo jàppandal ci yow te loru amu ci te coono amu ci nee na fa zalika li adami ilzamiha fi lwaqtayn marsi la boo gisee may di leeral bi wax dëgg yàlla ñaar yi du warul benn moo war par bés waaye foo muy di leeral bi pour ku mu jàppalal nga def te doo ci am benn bàkkaat tiyaaba nga ci am rek wa fi muniyatul murid boo demee ci téere bu ñaan muniyatul murid aliyu ibnu baaba radiallahu anhu moo ko taalif nee na wa marratun yalzamu fiiluha al muridu min bayni leyli wa nahaari la mazidu sëriñ bi def ne wasifa day doy na sëkk taalibe cheikh mu def ko ci suba ga rek bu ko neexee ndax moom la tànn wala bu ko neexee mu def ko maanaam ci ngoon gi rek te moom la tànn nag mooy farataam leneen amul lu dul lii imbaa nga tànn suba muy sa farata wala nga tànn ngoon muy sa farata neen wa man yaxussu layluhu bi gayri ma li yawmihi fa kazalika lil husni man intama nee na koo xam ne gi tamit dafa jël wasifa jagleel ko suba mu ne man suba rek laay def benn problème mu ci wala ki nga xam ne dafa jël wasifa ne man ngoon lay def nee na problème fexeel daal ba wasifa nga jagle ko ci suba ga muy suba wala nga jël wasifa jagle ko ci ngoon gi muy ngoon gi faidatu aydan wa fi madxal li ibnu alxaaj fallazi yanbaxi lil aalimi al yowma bal yajibu alayhi an la yandura ila awaidi allati aslaxna alayha wam benn sëriñ bu baax tudd ibnu alxaaj waa Maroc la sëriñ bu mag la boroom xam-xam bu rëy euh, taalibe Cheikh Tidiane radiyallahu taala anhu nee na daal nañu seet boroom xam-xam yi ñi nga xam ne ñoo jëkk ñëw génération bi jëkk ñëw ak ñi ci topp ak ñi mujj nañu seet sëriñ si fi jëkkoon lañ daan def te mu tegu ci sunna ñu toppandoo leen def ko nee na seet tamit jamono bi fu mu toll ndax àddina dafay dox su fekkee ne ñële lañ daan def ñii ñëw léegi buñ ko defee ndax jamono yi bokkul jamono bële ak bi bokkul ñu xam ne tamit du jàll ñu bàyyi ko bañ ko def ñi bañ nag di jël sëriñ di topp ci moom rek la nga xam ne lu muy def ci lu maanaam euh, yëpp nga ne baax na déedéet nee na ku bugg tënku ci sëriñ dëgg dëgg nga xam ne seexul murabbi la kooku da ngay maanaam am ay basira di ko seetlu di ko gis nga xam ne kii lu muy defkat tegu na ci yoon nga topp ko ndax nee nañu sa sëriñ bu fekkee ne def na loo xam ne njuumte la nanguwoo ko yow maanaam doo jëriñu ko sëriñ boobu ndax kummal la ndax maanaam seexul murabbi la. neen nag nañu seet toujours la nga xam ne moo fi jëkkoon te benn xat-xat du ci am benn lor du ci am ñu def ko. خاتم القرآن